asalaamaaleykum ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu képp ku fi teew ci turam ak santam di jéggalu it ci pression bi ndax ku jël kaddu rek ñu yàkkam ci jalaat micro waaye mi ngi nii léegi timis jot ñu war euh, taxaw lépp taxawal lépp di leen jaajëfal ci dalal bi ngeen ñu dalal man nag délégation bi ma àndal rëy na lool ci ñun ci dëgg-dëgg bu leen mës a xeeb fàll bul mës a xeeb lii nga xam ne fekk nañ ko fi mm-hmm. rëy na lool ci man fa tabar fa kàlla maa ngi jiital ci sant bi ci gërëm bi Modou Carré Modou Carré ndax saam nañu nekk waaye ni nga ko waxee sànq waa Touba ñëpp teew nañu kon maa ngi gërëm di sant ñëpp ci sama tur ak turu délégation bi fat jiital ci Modou Kaare waaye fàttewuma Ndey Diouf fàttewuma Khoudia Niang fàttewuma Léna Bass fàttewuma kilifa yi ñëw di leen xamal ne 2019 a ngi ñëw dëgg la élection présidentielle am na ci muy élection bu am maanaa lool waaye ñun de ci sama parti fay daal nañu élection présidentielle fay daan nañu élection municipalité té 2019 day am élection municipale bu fekkee né li nga xamné li lii doon na suñu mëbët muy tout sauf Macky Sall élection législative it maanaam élection bi fal député dina am mhm. lolu nak ñu wara japp né xéewal la 2019 ñetti élection yi tax ñu mëna jog di sànni carte amandoo

juróom bi que benn junne. Eh, deglu que fekk dig na jeex la nga ko ko lolu dañ ci 2019 dafa wara a doon at boo ne dañuy jàpp ne dañuy soppi ni politique waaw tout sauf Macky Sall kooku ci ndax ci dëgg wan na fi loo xam ne musuñu ko woon sax gis waaye nag waaye nag ci kaw moytu bañ indiwaat ku ko nuru lu nuru Macky Sall lan ak ñi mu àndal mooy politicien professionnel waaye waaye waaye ana réew boo xam ne ku ne yaa ngi jooy jafe-jafe ku ne yaa ngi jooy koom bu wàññeeku sauf politicien professionnel su dul politicien professionnel foo dégg milliardaire rek politique ko ko jox mm-hmm. politique politique du métier politique munoo ci am million munoo ci am milliard loo ci am jël nga ko ca jàmbur jël nga ko ca askan kon nañu seetaat suñu bok mm-hmm. seetaat ni ñuy doxalee politique seetaat ni ñuy tamo njiitu politique mm-hmm. ci ñett élection yi ma doon lim sànq oui, élection municipale élection législative élection présidentielle nañu tam di taamu ay kilifa politicien homme politique sax laay wax ak femme politique Yo xamné ne am nañu yaakaar ci ne bu ñu ci kaw li ñu won demb lolu am na solo ndax politicien dafa neex làmmiñ ci kaw li ñu won demb am nañu yaakaar né buñu togué dinañ doxal lo xamné njëriñu askan bi la njëriñu réew mi la loolooy politicien loolooy politique wolof ñaay dafa ne ronguñu baadoolo mooy cimetière buur loolu xanaa ca buur ya, ya. dëgg naa sax ne sëñ Cheikh Mbacke le Fatma daf ci teg dal na démocratie dëgg ñàkku président

ñoo dund jafe-jafe yi waxtaan ak ñoom mën a déggoo déggoo ci lan ci programme boo xam ne dañ koy taxawal mu nag doon programme boo xam ne doo ci gis Abdoul Mbaye xamul loolu de ku ne ku ñëw rek ma ne dinaa la defal ku ne ma ah ah dafa am loo xam ne mën nañ ko am loo xam ne mënuñu ko am loo xam ne mën nañ ko ci at am loo xam ne mënuñu ko ci at ku ne war a xaar loolu yëpp dafa war a dugg ci programme yi waaye waxtaan boobu am solo lool. chauffeur yi bu ñu ñëwee dañuy wax seeni jafe-jafe ne nun kat ni nañ ko gisee ci li ñu wax ñu seet li mën a ne li mënut a ne jigéen ñi ñoom wax seeni jafe-jafe am na nag loo xam ne kooku ma tontu ci ci ma tontu Baye Seck am na loo xam ne far na tëral nañ ko ba noppi ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey boo ma ci laajee lu jëm ci Touba li ma lay jëkk tontu mooy dëkk mënut ta doon deuxième ville du Sénégal te amoo fa zone industrielle c'est pas possible dëkk mënul doon rek dëkkukaay foog mu am fu ñuy liggéey donc déjà loolu am solo jigéen ñi jigéen yi wane nañu seen njàmbaar ñun ñii de ci lu tuuti la xam ne mën nañ ko ndax porte parti opposition tam am na loo xam ne mënu ko waaye ci li tuuti loo xam ne mën nañ ko ñu dimbali jigéen ñi.

ñoo doon defar saabu di jaay seen i marché defar saabu jël gaal dem jaay Mauritanie ba seen kees fees del waaye ëllëg bu fekkee ne jàpp ngeen président Abdoul Mbaye de l'acte war a doon président de la République du Sénégal na ngeen xam ne te Modou Carré wax na ko sànq man du ma wax lenn de la ñuy jiital ci suñu programme bàyyi sax déglu ma bu baax ndegem jëriñu njëriñu askan wi lañuy jiital wara jaamu njëriñu askan wi ñi ñàkk ñoo ñuy gën a dégg jëmale ko ci xeex xiif ci biir àll bi ndax loolu dafa am senegal 60 ans d'indépendance ñuy xiif kooku gàcce la te am na mar dinañ ko xeex dinañ toog itam te sawar naa ci di toog ak Modou Carré di ko di ko wax dëkk yi dëkku taax yi artisanat la ñuy fay daal ci tubaab Baye sek di nga dina dëgg li ma wax transformation structurelle de l'économie moom la ñu tuddee émergence waaye émergence du lii ñu ñu ñu ñu naxaate naxaate bii moom euh, kooku moom nax euh, émergence bu ànd ak xiif moom mosut a am fenn waye li ñuy jiital mooy indi koom indi koom-koom ci secteur yi nga xam ne ca la sénégalais yi gën a bari di ci yëngatu lu jëm ni confection ñaw lu jëm ji industrie métallique lu jëm ji lu jëm ci métallurgie menuiserie métallique menuiserie bois loolu yépp suñu programme yi ngi ci ba noppi ak jigéen ñi jigéen jigéen ñi transformatrice dina leen dimbale te du ko wekk ci dangeen bokk acte de ah ah koy wekk ci jigéen yi jàmbar nañu wane nañu seeni jàmbaar na état ñëw dolli dimbale leen mu leer nañ nga nekk acte nga nekk APR nga nekk PDS ñu loolu duñ ko seet ndax boo xasee ba doon jiitu réew

Euh, yaatal suñu suñu programme di di xamal liñ ci liñ ci liggéey waaye am na itam loo xam ne ñu ngi koy làqagum ndax bañ ñeneen parti yi sàcc ci lu bëri ba pare di ko di ko jëriñoo euh, fi may daanalee daal mooy cant ak i gërëm lii ngeen ñu defal Modou Kaare jiitu ci waaye loxo ku ne ñu ngi ci pour ndey ku ne nee na wax ñëpp a ngi ci ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm dina ñëw nag dinañ dellu si dinañ dellu si ndax ñetti élection yii di ñëw 2019 dafa am loo xam ne dañ ko war a waajal muy parrainage bii ngeen doon tudd sànq loolu nag du yàgg ndax yaakaar nañ ne fii rek fukki fan dina mën a door dañu nekkoon rek ci di

te te yaakaar nañ ne Abdoul Mbaye la place de Macky Sall itam loolu leen jërë ngeen